asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku internet yi Senfootball TV ñu na leen bu baax baax ziar leen di content saa su ne di am mbégte def vidéo te ne ñeu répondre seen benn question bu xamantene dama ko gis ci commentaire yi dafa am sama benn internet bu no moom Mohamed comme que dossier Sofiane Diop c'est très compliqué pourquoi pas convoquer Iliman Ndiaye mu remplacer ko ba tax man question bobu na ci tontu ba doli ci sax Brahim Soumar bi nek fële socio lan motax ñu ñuy wax si Sofiane Diop gis ngeen wa France ñoo joxe seen liste manam espoir motax may wax bu ñu joxe seen liste Sofiane Diop box mu nek surprise ba tax fofu sa France di nga gis ne ñoo ngi ciy wax parce que ñëpp dañoo gis ne Sofiane Diop premier passe saison bu mu def ak deuxième passe saison bu mu def ak Monaco au minimum war na mën a bokk si liste bu espoir yi maintenant nag foofu war nañ fa ay joueurs yu mel ni Ousseyn Awar ay yu mel ni Camavinga suñu joueur bi tamit am na ku ma si interpellé na ma Mohamed Malang Sarr waxoo ko si vidéo bi mujj Malang itam kan convoqué donc ba tey war na mën a ñëw équipe nationale du Sénégal mais Boukary Soumaré ak ak donc euh, euh, ndax Iliman Ndiaye mën na leen remplacer am déet léegi nag weekend bi gis nañ ne Ilman Ndiaye joué na ay premier minute am première ligne ndax moom si réserve bu Sheffield United la nekkoon waaye seen jongante contre Leinster 10 minutes la joué parce que entraîneur am doon na ko boole lu bëri ci groupe A bi mais mosu ko jox temps de jeu waaye match bi dañ leen gagné 5-0 léegi Ilman Ndiaye ndax mën na ko remplacer comme ni ngeen ko gisee man si chaîne bi ne euh, comme comme man damay wax ak Ilman Ndiaye Instagram moom moom waxoon carrément dafa bëgg joué équipe nationale du Sénégal maintenant dama waroon a wax ak kii Koto maanaam kii yor si U23 mais batay tey ñu match manam U23 batay ba ñu match waye Ilmandia Ndiaye moom bëgg na jouer une petite catégorie jamono bi nak mënul jouer ci équipe bu Dabo manam U20 yi mën fa jouer té Dabo sax nekkatul entraîneur U20 mais U23 yi mën a jouer parce que amna plus de 20 ans donc euh, nax war nañ ko mëna wo woo équipe du Sénégal lu mëna a nekk vu que même style même style bu Sofiane Diop la ay numéro 10 la ñu donc bo xolé Sofiane Diop nga xool euh, franchement nga xool Iliman Ndiaye voilà di gis ne am na lu bëri lu ñu am na lu bëri lu xamante ne nduróo nañ ko aussi tamit bu fekkee jamono bi mënul jouer si euh, na laa mënul jouer si euh, petit côté bi vu que amaguñu match pourquoi pas woo ko équipe nationale Sénégal aussi tamit jamono bi euh, suñu liste bi dafa bëri ay doute maanaam tey jii kenn mën wax na Sadio Mané dina ñëw kenn mën wax na ñoom ñëw parce bëri na ay club yu xamante ne ñoo bëgg a téye seen joueur waaye su fi waaye su fi ñaati ci li ba tey gisoo ko moom ne dañoo bëgg a seen joueur maintenant Liverpool dégg nañu nga dañoo blessé donc tey jii ñu woon benn Soufiane Diop mu seulement équipe match officiel la pour man baax na pour ëllëg boo ko soxlee nga mën ko convoqué donc yow mi xamante yaa ngi posé question bi lu mën a nekk rek Iliman Ndiaye bu xamante au niveau de Sheffield mais en même temps day joué numéro donc loolu mooy sax vrai postam donc war nañ ko mën a convoqué mu remplacer kii Soufiane Diop si toutefois dossier Soufiane Diop c'est gëmu ne Didier Deschamps dina ko convaincre franchement pour être honnête donc euh, tay ji bu ñu woowee Iliman Ndiaye lu mëna a nekk léegi bu ma waxe Ilman Ndiaye damay wax tamit Brahim Soumaré parce que bo jëlé Brian Soumaré Ilman Ndiaye Soufiane Diop même style bi la donc franchement ay numéro 10 lañu bo gisee Omar Daf sax li tax bu comme que dañoo prête dañ ko aaloon ki Soufiane Diop au niveau de Sochaux Brian Soumaré moko remplacer donc même qui bi la donc voilà même style bi donc moom item war na mën a remplacer euh, Sofiane Diop nek na joueur bo xamantene bi may def vidéo bi li len wax dama doon doon wax né est-ce que réellement sénégalais la bi ma posé question yalla dimbal na ma comme ni may wax à chaque fois amna ko xamantene ni nijaayam la d'ailleurs commentaire bi épelé na ne dama koy épelé muy wax carrément ne Sofiane Diop grand-père sénégalais la papa métis la donc voilà c'est un vrai sénégalais donc voilà wax né fuñu sax jóge ci Sénégal donc nek na ben texte bo xamantene euh ni nijaayam boobu def na ko boo leen seetaanee vidéo bi ngeen gis ci commentaire yi ma épinglé ko donc pour ñi xam ne doon posé question naan bu sénégalais Sénégalais la leer na leen donc moom nekk na jour bu xamante ne même style la même registre la que Sofiane Diop même registre que euh, Elimane Dia donc question bi xamante ne posé ngeen ma ko ci commentaire yi lii laa ci xalaat yéen tamit wax leen ma seen xalaat ndax Elimane Dia c'est très tôt ñu convoqué ko waaw am déet wala da ngeen gis beneen solution numéro 10 beneen jour bu mel ni Sofiane Diop en commentaire wax leen ma ko léegi wax itam ngeen dem suñu compte Instagram suñu football TV officiel di abonné bu baax a baax di abonné fii ci YouTube di cliquer ci cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan Dirija Providence Central TV. Bye bye.